kaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf gaalu looco gi mbëkkante woon bërki biik ak batop sangomar bu marine nationale lu mu gàtt-gàtt ñeen fukki nit faatu nañu ca journal La Tribune moo ko bind ci xëtamu njëkk ubbil yéenekaay bi am na benn waay bu ne woon ca gaal ga mi ngi wax ci La Tribune na mbir ya demee waa ji Ibrahima Fall la tudd am ñeen fukki at ak ñaar cosaanoo ca Ndar mi ngi ak ñeenti doom nee na juróom benn fukki junni maanaam trois la joxe woon ngir mën a bokk ca ñay dem woon sumbi jun ko bëggee sensé moteurub 60 ci la leen marinub espagnol gis woo marinub sénégal wax ko ko bi marinub sénégal bi yegsee ci la ñu tàmbalee dàqante ak seenu patrouille bi ñu demee nag ba xam ne jekku nañu ci la ñu jël dogal ne dañu taxawal gaal gi ba ñuy seet fan la ñu war a taxawal suñu gaal gi fa la ñu batop marine bu sénégal fekk mbëkki ñu kanam gaal ga xar yuuxu yi tàmbalee takar naase ku nekk di seet nu mu rawalee boppam ibrahima fall ne fanweeri nit ak juróom-ñeent la ñu waaye am na lu ëpp ñeent nit yoo xam ne ba léegi kenn gisu leen xëy na sax faatu nañu ndax ñu bari ci ñoom mënuñu ndox mënuñu fay loolee mu wax La Tribune nañu am na keneen ku newoon ca gaal ga ku ñu naan Abdoulaye am ñaar fukkeet ak ñeent dëkk ca Saint-Louis moom it dëggal na ko fanweeri at ak ñaar la am Bekay Diak fanweeri at ak ñaar la am El Hadji Ndiogou Sarr fanweeri at Abdoulaye Anne fanweeri at Asdamka Dib Masson moom mi ngi amoon fanweeri at ak juróom-benn ca Pikine gàcca Ndar gi nga xam ne ñu bari ci ñi faatu ci gaal gi fa la ñu dëkk l'observateur nee nañu seeni mbokk dëjël nañ leen bu nuppi boole wanaasu seenu naqar di tiisu li waa Ndar di dund Ndar googe journal Les xëy na di ñu wax ci xëtamu mu njëkk ne am na geneen gaal gu foteer démb na mu demee yéenekaay bi nañu gaalu looco gu yeboon ay nit bëggoon mbëkk ak ñoom wutali île Canaries ga ca Espagne waaye yoona moo leen réer ñu nekk ci géej gi juróom-ñeenti fan di wër a ka wër wagaaj xamuñu fan la yoon yu féete ba ñu demee ba sonn boole ko xiif ci la ñu jëlee décision teeral gaal gi ca boori Hydrobas ba sandarma yi di yegsi juróom-ñetti nit la fa fekk ña des ñëpp dañoo daw dugg mboy gi sandarma yi xamle nañu ne teg nañu loxo ne ko ñu immigration clandestine dimba ki mi dana naqare régler ci réew mi daan ñu war a teg ci ndoddal convoyeur yi ñooñu Macky yi sax dégguwuñu ci ci kaw i kàddu ndax bu dee Mansour Faye ak ministre de la jeunesse nee na Fatoumata Tall jàpp nañu ne dañu ko war a criminaliser ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye moom safaan wala gis ne ba ñu ko ca laajee dana déet déet gu wow kong tuuma yi wow kong la ñu la sine kay nañu moom lañ jiital parti Pastef di Ousmane Sonko gàll ci ndoddal Macky Sall ci li xew ci réew mi di gone réew mi jóg jël gaali loo ciy mbëkk wutali bitim réew ne Barcelone wala Barsaq Sud Quotidien dolli ñu ci ne Ousmane Sonko nee na lu jiin njaaga état bu Sénégal ci Sall la joxar bi baaraamub tuuma ci ne moo jëfewul li mu diggoon ndawi réew mi mu di wuta leen am xëy ñu ne déet na waay mu jël ressources yi ci réew mi yëpp jaay ko bitim réew moo tax gune réew mi dem ba yemale toog ci réew mi ak leen ray lu ray mbuum deece giita ngas gi woon ci diggante ministre enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne ak journaliste bii di Pape Alé ak Mody Niang ak Nafi Ngom Keïta coow la teere ji woon tribunal yéenekaay yu bari ñu xëy nañu ak sursis alamaan leen fukki millions yu ñu war a jox Cheikh Oumar Anne suur nañu fukki millions yu teg deux leen alamaan le ceex na danjum def na leen ko am na ndam ci seen kaw La L'As Vox Populi ak Le Quotidien xëy ñoom it xibaar bi ci seen xët njëkk keneen ko yoon daan Le Quotidien nee nañu moo di honorable député Moustapha Cissé tuuma yi mu yëkkati woon gàll ko ci ndoddal jabari ay miiru ñëng président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci doxale gi ci weneen wàll wàllu coppar ak soppi woto yu màgget yi ci réew mi it naka noonu yeesal gi ñeel parc automobile euh, wax na ci kanamu assemblée nationale dogub nguur gu senegal ngir daal di egg ci lu ni mel ci technique bi Aliou Ba xibaar yi dañu koy door ak magistrat bi jiite union magistrat yu Sénégal Souleymane Téliko war a jaar tey jii ci kanamu rapporteur bu conseil discipline conseil supérieur magistrature bu Sénégal ñu fàttali ni ko koy déglu kon euh, ci euh, boobu kuréel mooy procureur général cour d'appel bu Ziguinchor euh, magistrat Assane Ndiaye di waral déglu gi te ci fàttali mooy kàddu ak gis-gis bu mu amoon ñeel àtte ba fi woon ñeel Khalifa Ababacar Sall mu gisoon ni rëq-rëq moom juge Souleymane Téliko laata jaar gi tey ci kanamu boobu kuréel ñu fàttali ne déglu it ñeel amaloon na ko ci kanamu inspection générale administration justice bu Sénégal IGAJ ca ndar brigade territoriale baa fa daal di kar gaal geneen maanaam ay gune doomu Sénégal ñu nasoon tukki ci anam dëppwul ak yoon ñaari téeméer ca gaal ga euh, mooy seen ab lim ñaar fukki ak juróom-ñeent nag la ñu teg loxo ñeneen ñi xelu jamono yi leeral li Mouhamed Nabi si la gaal gu defoon lu ëpp téeméer ak fanweer ci ay doomi aadama yu bëggoon dem ca Espagne ci walu mbëkk mi ñoo am ay jafe-jafe ba dal sax ci place bu hydrobase bi gannaaw ba sàndarma yu brigade territoriale jote xabaar fi lu dul juróom-ñeenti nit ñi ci des rëcc ay checkpoint yu ñu def ci gaaru Thiès ak ci buntu dëkk bi tax nag ñu teg loxo ñaar fukk yeneeni nit yoo xam ni dañ doon bëgg dellu ca bërëb ya ñu jóge woon ñoom ñi ci ëpp nag dëkk ci Mbour Joal Fatick ak Île du Saloum te mboon ci Mbour ci àllarba bi ñu génn tey nag ñi ëpp ci ñi nekkoon ci gaal gi jot a rëcc mu bokk ci benn jigéen benn ci capitaine yi bokk nañu ci ñaar fukk ak juróom-ñeent yi ñu teg loxo daañ leen déglu ci àllarba bi ci brigade territoriale bu gendarmerie bi laata ñuy seet ba mën a teg loxo convoyeur ak passeur bi encaissé woon seen xaalis ñu yokk ci ay doomi Sénégal yu jëloon mbëkk mi doon dem ca Espagne seen gaal yam ca Mauritanie jot nañ leen indi ci frontière bu Rosso Sénégal ci talaata ji ngir ñu delluwaat seeni kër RFM ci ndar géej Mohamed Nabi Sila jërëjëf ci tournée bu mu doon amal ci fi nga xamante ne mooy dex gi di fleuve Sénégal njiital euh, SAED directeur général ba Aboubacry Sow moom daal dina tiisoo ak mititlu bu baax guddee yi ñàkk seen bakkan ci géej gi ca moo ne ci gis gi sam bu nu toogoon fii ci réew mi liggéey joxe na ca misaal gune yenn jamono yi ca tool yi ceeb pataas ak tamaate ca bët saalumu Sénégal ca di ca tedd na mu waree noppi na sax mu ne ngir def liñ naan euh, visite guidée yóbbu fa nit ñi xool ak i gët ni mu ko waxee ngëneele ci yooyee tool wuute lool ak la nuy daj euh, ca Europe waxumalaak ca yoon wa sax laata ñu yegg ñu déglu ko directeur général Sayed Aboubacry Sow ak Mouhamed Nabi Silla suñuy doom suñuy jarbaat xamee ne jël gaal yi bëgg jaar ci géej gi pour dem donc ci biir loolu ñu gis ay xale yi nga xamee ne ñàkk nañu seen bakket ñu leen di jaale leen jaale seen i seen mbokk xale yooyu nañu xam ne mbay mii liggéey bu bari am na fi liggéey bu mun indil nit mu suturloo ci am ci xaalis bu rëy exemple bi may joxe rek mooy bi ma ñëwee fii ci Dagana ay xale yu ndaw ñoom ñooy bay ci ñaari junni ak juróomi téeméeri hectares yi nekk pourtant ñu ngi fiy tedd mooy wax xale yi Sénégal xam leen ne fii ci biir vale bi ci biir Sénégal sax

Sayed Aboubacry Sow gouverneur ab Kaffrine di dëggal lu ni mel moom jàpp na ni mbay mi ci boppam mun na doon euh, saafara ci euh, gune yi nga xamante ni euh, ñooy wutali bitim réew ak it ñiy fàqee ci gox yu xëj ci réew mi di def li ñu naan exode rural mbay moomu mu ngi ko xamle moom gouverneur bu Kaffrine ci tournée économique bu mu doon amal ci diwaan nga doon xool fan ci toll ci mbay mi ci ca Ndoukoumane monsieur le gouverneur William Manel ak Oumar Ndiaye. ndaw ñi tam c'est vrai que mën nañ am yeneen yeneen liggéey waaye mbéy mi tam mën na leen leen jural koom lu bëri bëri bëri li ñu war bor ñun mooy intéressé leen ci wàllu mbéy mi wane leen ni mën nga toog toog sa gox béy fa am li li fa am tekki tekki fii mën war na mën a nekk parce que ren ji vraiment bon yàlla may nañu taw bu am bu am solo production yi boo xoolee vraiment lépp yokku na daan daanaka loolu lool loolu yëpp boo ko jaayee xaalis la donc euh, tekki aajowul forcément nga dem bitim réew déedéet mun nga fi toog fi ci réew mi liggéey fi tekki fi donc loolu mooy message bu ñuy jox jeunesse bi surtout que boo naree tukki na doon ci ci ci ay anam yu wóor bañ a dugg ci gaal yi bañ a dugg ci géej gi parce que loolu daal vraiment day jur loraange pour yow sa bopp say waajur mais surtout kii sa réew. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. ñu waxtaanee pétrole ak gaz bi dox diggante Sénégal ak Mauritanie ak jariñoo gi ministre bi ñu dénk wàllu pétrole ak énergie ci Sénégal du Mactar Cissé yëkkati na kàddu ci kanamu député yu Sénégal yu Mauritanie naka noonu doon sàkku ci société privée yu Sénégal ak Mauritanie ñu daal di lëngoo doon benn ñoom it ngir kàttan gi war fexe ba ñoom it naka euh, British Petroleum bépp defee ñu daal di bokk. ba daal di koy limité. jamono ji itam ci ngeen war a góorgóorlu bu baax ba xool itam risques yi nga xam ne am na ci wàllu alam gi ak naka lañ mën a def ba mën koo wàññi. de mitigation. booy xool projet GTA ñu ngi koy liggéey ci waax yu Sénégal ak feneen waaye li ëpp ci liñ ci waroon def def nañ ko ba noppi suñu sukkandikoo ci directeur général bu BP Sénégal Jérôme Mossari. nous estimons que le retard occasionné. ñun dañu jàpp ne retard bi nga xam ne tukkee na ci Covid 19 bi benn at kot la kon fii léegi atum 2023 dinañ am gaz bu njëkk bi te itam booy xoolee liggéey yu ñu waroon def yëpp daanaka xaaj bi def nañ ko. non jamono ji nag la entreprise privée yu Sénégal ak yu Mauritanie war tànn ngir gën a góorgóorlu bu baax boole seeni doole ngir mën am ay déggoo yoo xam ne dañ koy siifeek entreprise bii di BP mën a liggéey ak moom Mouhamadou Makhtar Cissé di xamle ne suñu ko deful duñu jëlee dara ci BP ak lu ci mën di am soo leen ko defil itam BP dafay daal di liggéey ak yeneen entreprise yoo xam ne ci bitim réew lañ nekk kon lëkkaloo boobee mënta ñàkk mën ngeen jàppee BP ñu baax de waaye duñu waa croix rouge de duñu leen may dara faaw rek ngeen waajal soobu ci wàllu pétrole ak gaz ak ni muy du leen may dara lépp loo leen ci am da ngeen ko liggéeyal seen bopp yu Sénégal ak yu Mauritanie te Oxfam ak yi partenaire am daal di koy taxawal suñ ca noppee war nañoo mën a am mbootaay goo xam ne moom mooy saytu tolluwaay projet gas yi bu GTA jërëjëf Abdou Diouf Junior ñu waxtaanee dem ak dikk bi ak euh, lu jëm ci yoonal gi di euh, règlement 14 bu UEMOA ñeel wàllu charge à l'essieu woto yeeg la ñuy yeb ak PSE la war nepp yàpp ngir ñu mun a jaar ci tali UEMOA daan ko doxale ba mu mat loole ministre El umar Oumar ma ko xamle ci weneen wàll it yeesal gi ñeel xanti woto yi ci réew meeg màggetaay loolu it nguur gi na ci jublu ne renouvellement mu ngi ko xamle ci assemblée nationale jamonoy euh, adoption loi bi ñeel fonds d'entretien routier autonome FERA Hadj Seydou Nourouba chauffeur transport en commun yi nañ ci bàyyi xel te ñu xam ne day am lii di appliqué ba mu jeex takk règlement 14 bu UMOA jëm ci charge à l'essieu maanaam li ñu wax a yàpp mu bañ ëpp laata ñu yàq tali bi dañ koy tàmbale ci weeru mars 2021 maître Oumar Youm ministre des infrastructures transport terrestre ak désenclavement. waaye bu soobee yàlla jox nañu délai mars 2021 ci la ñuy war a def nag application intégrale bi nga xam ne mooy règlement 14 ñu bàyyi nag par parloo Sénégal parce que général générale maanaam loi dafay appliqué wu ci ñëpp bu ñuy appliqué loi di ngeen dégg ay grève di ngeen dégg ay coow di dégg ay menaces mais wax dëgg yàlla nag ñun suñu dëkk bi moo ñu gën a lépp te bu lii nga xam ne nag président def na mooy yokk xaalis bi nga xam ne moom mooy def entretien routier dañu ko war a toftal ak sàmmonte ak réglementation bi nga xam ne mooy tax tali duñu gaaw a yàq ku ñu wax ne da ngay chargé 5 ci 5 ku war a chargé 10 tonnes yemal ci 10 tonnes ku war a chargé 20 tonnes yemal ci beneen date bu ñu war a téye muy décembre 2021 Sénégal dina tàggoog woto yi nga xam ne dañoo màgget lool léeg-léeg sax ñuy dem bay mag seeni chauffeur li ko waral mooy yeesalaat parc automobile bi sept places yooyu bi ñu ko xaymaa ci Sénégal ñu ngi nekk autour de sept mille cinq cent sept places ci interurbain boobu kaar yi fay daw ñu ngi leen xayma ci huit mille mu nekk quinze mille pièces yoo xam na nii ku ci nekk lu mu tuuti tuuti am nga vingt cinq ans moyenne d'âge loolu ne dañ ko remplacer ñu commencé nag ci sectement bi gën a màgget mooy set place cette place maintenant lu mu tuuti am na quarante ñu tuddee leen cinq cent quatre usine ba ko doon defar projet boobu amatul li jëm ci wàllu ci lum masque gi exigence bu wër lay doon. police nag daf si am taxawaay bu rëy boo xam ni daf koy def taxawaay boobu daf ko gën a dëgëral si gàmm gi pour au moins pèlerins yi ñëw mun a respecté yi nga xam ni kilifa yi moom la ñu tëral comme le port obligatoire du masque. muy xamle ni nag lépp luy service de sécurité di wéy karange ci biir diwaan bi daañu ko mobiliser rax ci dolli renfort bu am solo bi nga xamante ne fekk si na leen. téeméer ak fanweer élément yu jógee Dakar si ay service yu bëri mais bi si gën a ëpp mooy GMI groupement mobile d'intervention mais am na yeneen services yoo xam ne comme ay sûreté urbaine DPJ ak euh, les services euh, de la cybercriminalité division cybercriminalité ñoom ñëpp ñëw nañu pour jàppale ñu si liggéey lu jëm si wàllu jumtukaay yu mel ni ay oto ak moto moom na def nañ ci du am solo. moyen logistique yi. defe naa ni jot nañu mobiliser lu toll fukki oto ak juróom ak euh, ñeenti motard yoo xam ni dinañ taxaw pour mun a faciliter déplacement éléments yi sur le terrain. opération de grande envergure bi mu ne nag tàmbali nañ ko depuis octobre jur na lu bëri bëri ci wàllu interpellation ak nangu oto ak ay moto lu mot kon ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti doomu aadama wóolu nañ leen saytu leen ndax seen comportement ci biir mbedd mi Ibrahima Diame Kaolack RFI Sport. tàggat yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay français sa karawaat gi kawe na de. ndax ndax loolu dana dana neex boycotté El Hadj Assane loolay coow li. <laughs> ci wàllu sport. waaw dañ koy daal di door rek wàllu basketball ak euh, Boniface Ndong bi nga xamante ni moom moo di tàggat équipe bu Sénégal euh, yëngu ci wàllu basket ci góor ñi euh, di équipe nationale bu mag bi nag ñoom dañuy waajal li nga xam xamante ni daal moo di éliminatoire afro basket bu ñu nama amal ca Kigali di capitale fan juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer novembre Sénégal nag euh, bokk groupe ak ñii di waa Angola Mozambique ak Kenya moom nag Boniface Ndong euh, gulet euh, muy daal di kon bokk euh, soobu ci jogante gu ni mel gannaaw ba ñu ko nommé mu doon entraîneur bu équipe nationale basket bu Sénégal ci wàllu góor ñi na ma leen ko waxee nag ni ki tey ji dana amal conférence de presse daal di siwal liste jour yi nga xam ne daal ñoom la tab ci bu 17h30 jotee lay daal di amal lu ni mel foofule ci dalluwaay fédération sénégalaise bu basketball nekk ci stadium Marius Ndiaye ñu daal di waxtaanee wàllu football ak deuxième journée Ligue européenne des clubs li ki démb Liverpool moom mujj naa am ndam ci digganteem ak doomu Danemark yi di Midtjylland ñaari bal ci dara waaye la ñu wane daal euh, dalul xel lu ci mënti am rek jàppale ni ñoom itam lijjanti nañ ko donte jafewoon na ci ñoom. seen but kooko dugal moo di Diogo Jota. moom mi nga xam te ne doomu Portugal la doon recrue bu bees ak kii di Mohamed Salah penalty Mohamed Salah sax euh, dugg remplaçant ànd ak Sadio Mané ak Firmino ndax ci ndorteelu googu lay jongante ñoom ñëpp ñu ngi woon ci banc des remplaçants yi la ci ñuul nag moo di gaañu gaañu bi nga xam te ni Fabinho di doomu Brésil nekk ci Liverpool man ko amee laata ñu koy génnee ndax moom moo remplacé ci axe défense euh, bu Liverpool kii di Van Dijk nga xam te ni nee nañ fi lekk ay weer yu bëri moom dootul yëngatu ci football ndax gaañu gaañu bi nga na ko ci genou bi. Drom Manchester City loolu nag du mbetteel bitu Manchester City ka ko dugal moo di Raheem Sterling Gundogan ak Kevin De Bruyne Real Madrid moom mën nañoo jàpp sax daa rëcc ndax démb Borussia Mönchengladbach di équipe Allemagne jekkoon na ko loolu ngir gagné ko mën na ko 2-0 waaye daanaka ci njeexitalu jogante gi la Real Madrid daal di égaliser seen but nag ka dugal moo di Karim Benzema 87e minute ba ca des ka ko dugal nag moom moo di Casemiro di doomu Brésil 93e de jeu ñaari Thuram doom la ci Lilian Thuram mi nga xam te ne ancien international français la Porto moom dafa daal di daan ci dëkkam ñi di waa Olympiakos di équipe bu grec ñaari bal ci dara Pape Abdou Cissé di doomu Sénégal moom nag ci Olympiakos la daal di ne équipe FC Porto geneen doomu Sénégal ma nga ca di Mamadou Loum Ndiaye waaye moom jotut a football yeneen résultat yi Bayern Munich mi nga xam te ne moom moo di équipe championne en titre moom nag dafa fekki locomotive bu di ko daal ñaari bal ci Atlético Madrid diggam ak Salzbourg la woon ñetti bal ci ñaar la ko Madrid daal di daan ñaari biti ko di doomu Portugal gi di João Félix Atalanta bu dafa daal di match nul ak Ajax Amsterdam deux partout Shakhtar Donetsk di équipe Ukraine ak Inter Milan ñoom itam di match nul niki démb zéro but partout la ci des ci wàllu jongante ñeel deuxième journée Ligue des champions tey jii ci ngoon Juventus de Turin ak FC Barcelone bu Cristiano Ronaldo googale match incha allah di ngeen ko mën a déglu itam ci bu 20h jotee en direct ci rajo Futur Media Istanbul Başakşehir di équipe bu Demba Ba ci Turquie ñoom tey jii dañu dalal Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye geneen jongante moo di ren ak ñi di AS Séville dañ ko dal di amal ci Espagne ci bu 20h jotee Mbaye Niang moom du ko teewee ndax ba tey jii nii entraîneur bi euh, jëlu ko. di Julien Stéphane di doom ci Guy Stéphane mi nga xam te ni ci jamono doonoon na sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal jamono gi bokk ci encadrement technique bu équipe nationale bu France ànd seeg kii di Didier Deschamps euh, waaye googu la jongante diggante Rennes ak CC bi geneen doomu Sénégal moom dana teewee moo di Alfred euh, Gomis mi nga xamante ni daal moom moo di seen góol ñu daal di waxtaanee mbirum FC Barcelone ñoom nag ni ki démb ba tey amatuñu président club ki nga xam te mu di Josep Maria Bartomeu moom dafa dal di lii di démission moom ni ki euh, démb euh, jàppale ak Bayern Munich 8-2 ki nga xam ni daal moom moo di magistèram di Josep Maria Bartomeu Algérie kii di seen entraîneur di Jamel Belmadi moom nag daal dina prolongé contrat am ba atum 2022 ak seen équipe nationale euh, moom nag 2022 li nga ko sas moo di fexee ba qualifié ci wàllu coupe du monde bi ba pare daal di amal taxawaay ko am solo fàttali nag Jamel Belmadi moom gannaaw ba mu jëlee Algérie ci atum 2019 ci la jëloon lii di Coupe d'Afrique des Nations euh, ca Égypte la woon ca ker gannaaw final bu doxoon ci digganteem ak euh, Sénégal. ñu daal di waxtaanee bi lay yoon équipe nationale u bu Sénégal ñoom itam ñu ngi doon amal jogante xaritoo euh, seen digg ak ñii di waa Maroc Maroc nag moo leen daal di daan ñetti bal ci benn ci Rabat lañ ko doon amal. score bi ñi nga xam te ñoo njëkk a dugal di Sénégal ba match amee fanweeri simili Mamadou Lamine Camara moom jot naa égaliser itam pour Sénégal euh, jàppale nag moom ma nga nekk ci équipe bi di Darou Salaam bu Dakar waa Maroc ñoom daal di dugal 73e 80e minute ak 50e minute ci mujjantal daal di am ndam seen digg ak ñii di waa Sénégal fàttali nag Sénégal ma ngay jël euh, ci atum bi ñu jublu euh, li nga xam te ni moo di tournoi UFOA B mi nga xam te ni Sénégal sax moom moo di équipe championne en ak wàllu athlétisme fédération sénégalaise bi nga xamante ni toll nii ma ngay lal al plan programme ci atum ngir daal di kon boog sóobuwaat ci nga xamante ni daal moo di ay jongante ñu ne nag ci lu jëm nag ci euh, ay coppite bokk na ci daal di encadré meilleurs athlètes nga xamante ñoom ñoo fas yéene kon boog teewal Sénégal ci compétition internationale yi dañ si daal di déglu njiitu fédération sénégalaise bu athlétisme di sarawale ci téléphone Youssouf Bodian compétition ci réew mi lañ koy organiser am yoo xam ne bitim réew lañ ko organiser yi ñuy organiser ci réew mi nag li ñuy wax compétition sur route la mooy xale dañuy daw ci ci mbedd yi nekkul ci stade bu fermé kooku mois de janvier yëpp moom la ñu organiser le huit février la ñu compté organiser championnat nationaux yooyu bu ñu fa jógee nag doog a organiser ay championnat ci ci chaque stade yi am na championnat yoo xam ne si moom la ñu jagleel xale yi yooyu ñu ngi koy organiser mois de mai trente et un yi nga xam ne moom lañu moom lañu jagleel mag ñi yooyu mois de juillet lañ ko organisé loolu lañ lañu bëgg am na meeting boo xam ne aussi meeting bi meeting mois la euh, Dakar lañ ko bëgg organisé pour euh, commencer meeting meeting Dakar bi pour fexe mu ñëwaat mais ci meeting mu daaw boobu lañ bëgg a commencé su fekkee euh, toutes les conditions sont réunies bon am na aussi sur le plan international am na compétition yoo xam ne si bëgg nañ ci participer mooy compétition championnat d'Afrique yi d'athlétisme yi du vingt huit du vingt quatre au vingt vingt huit juin yi ñu organisé Algérie am na championnat du monde U20 yi du 7 au 12 juillet yu organisé Nairobi am na jeux olympiques yi aussi yu organisé euh, Tokyo ci digg du 24 au 9 août. kooku di Sara Wali jiite fédération sénégalaise bu athlétisme kon mbokk Alaaji fi lañ koy daal di yemale xibaaru takkat yaram yi. jërëjëf sëñ Cheikh. ak RFM kumpa jeex na. ñu yegg seeg yéen ci wàllu cosaan gi chronique culture soxna Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi patrimoine audiovisuel bu Sénégal nekk na lu soxal loolu euh, jamono yi ñi nga xamante ne euh, ñoo di euh, kilifa yu ñuy dénk wàllu aada jamono yi daal di nañ restauré lu ëpp ñaari téeméer ci ay film lu ci ëpp nag di ay archives yoo xamante mu ngi soxal actualité bi fii ci euh, Sénégal ci jamono bi nga xamante ne ñu ngi doon màggal édition bu njëkk euh, journée mondiale du patrimoine audiovisuel fii ci Sénégal ci le directeur de la cinématographie daal di yëkkati ay kaddu Hugues Dias di euh, sàkku ñu daal di rapatrier yeneen film yi nga xamante ne ñoo nekk biti réew. waaw en tout cas ñu ngi ci négocier xam nga dëkk comme France am nañu ay accords ay accords de coopération culturelle defee ci wàllum euh, masque yi lépp lu demoon ci objet d'art yi loolu la ñuy ñaan lu nekk ci wàllum image ci tugal bëri na ci lu ñu mën a estimer quoi parce que film sénégalais yu bëre réalisateur yu bëre seen film foofu lañ ko defee tey mënuñu am euh, copie seen film moo tax ñuy sandi ñu lancer un appel autorité yi président de la république mu gis naa tàngoom français pour que ñu gën a waxtaan ci loolu président Dia bu ñu ko doon def nit yi dañu dem ina fay lu bëre ci image yu ñu moom loolu lu métti la premier màggalu Touba tey génn nañu image boobu taalibe yu bëri même ñun ñun bëgg nañu xam naka la woon mais balaa nga koy kii da ngay dem fay waa ina xaalis bu bu doy waar alors que image yi fii lañ leen jëlee fii lañ nit yi di ko exploité foofu. ñu wutali euh, Tambacounda foofee nga xamante ne Moussa Oumar Gueye daal dina euh, teewee ab séance de répétition orchestre bi di euh, Mamakunda Melody ñoom nag seen style musical dafa diversifié. xeetu musique bi nga xam ni ñoom ngi ciy yëngatu waa orchestre Mamakunda Melody dafa nekk benn xeetu musique boo xam ni dafa ubbeeku dañuy yëngu ci musique boo xam ni dafa yem fii ci Tamba yem ci réew mi ak musique boo xam ni sax dañ koy jéggaani Mamakunda Melody boo xoolee lu ëpp fukki artistes musiciens ñoom ñoo fa daje ci noonu nag dañuy yëngu ci wàllum seen bëgg-bëgg muy musique waaye itim ba tey dañuy yëngu ci wàllum formation. Mame Seyni Gueye mooy bassiste bu Mamakunda Melody depuis 2015. chanteur yu bëri parce que ki su nekk ak genre bi ngay def. pratiquement je peux compter cinq à six personnes. yi nekk fii ci groupe bi ku si nekk ak genre musical bi ngay def benn moment arrêté woon nañu suñu activité <coughs> donc avec les interdictions yi amoon arrêté woon nañu activité yi. bon franchement jotaguñ ci dara. ba léegi egsiwul en tout du fi kenn koo xamante ni dina la wax ni ci fonds yi jot na cee laal dara. contribuer nañ ci yàlla parce que ñu ngi doon respecter les mesures jot nañ si def euh, ak suñu chanteur benn lead vocal bi ñuy wax Blackman jot na ci def ay sensibilisation ba def ci benn clip. Mamakunda Melody génneegul album ci marché musical waaye nag nekk nañu ñoo xam ne daal lu jëm ci wàllu réseaux sociaux yi nekk ñoo xam ne sawar nañ ci lool li gën a fës daal ci li nga xam ne ña ngi koy def mooy ay aju wàllum répétition wàllum encadrement ñi nga xam ne yëngu nañu ci wàllum musique waaye itim ba tey di def seen animation muy seen mbégte. mélodie. Uh -huh.